te changement physique c'est moo am xaalis wala num mu demee changement physique dépendre de si si si xaalis parce que démb rek moy comme li ma la wax man sama soppé yi samay conseillers lañu démb dafa am kenn ko xamante daf ni ma mi ngi États-Unis daf ni ma soppé dina la inscrire ben salle de sport ngay dem deux fois par semaine may fay <laughs> parce que dama ni ko wa mais man li sauf mooy ma gëné sama buntu kër.

non on prend dañuy mag, dañuy maguette non il faut mu leer ça c'est pas une raison pour ne pas ou à ce point mais voilà en tout cas pour voir le quoi euh, am na ci liggéey bu may préparé def une série bu pour jouer il faut ma forme bu bu quoi donc je du ci je suis li nga <laughs>